alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf sëñ Abdoulahi wallaay wallaay sëñ Joxaane mu mel ni am na ñu bëri ñu may yónnee message di lay nuyu di lay siyaara di lay ndokkeel. di am mbégte lool tamit si waxtaan bi. ndeysaan macha allah ku si mel ni Serigne Fallou Ka nga xam ne moo. mooy sama buntu macha allah. moo nekk si buntu lycée Seydina Limamou Laye Eh, mi ngi lay nuyu trop mi ngi eh, lay siyaara dañoo baax wallaay ndeysaan uti dañoo baax wallaay wallaay te fonk rajo yi wallaay wallaay moo tax saa wax booy bu góorgóorlu di wax lu su mën a xam ndax déglu dafa metti dëgg la dëgg la dafa metti ki lay deglu nag defal ci boppam lu am solo dëgg la dëgg la oustaz Mouhamed Niang moom it ngi lay nuyu mu ngi lay siyaara ah, soxna sëy hmm. moom it ngi lay nuyu mu ngi lay siyaara ndeysaan maa ngi nuyu bu baax alxaaji Alfa Seyni Sagna moom it maa ngi koy nuyu Adja Ndeye Fatou Ndiaye nu dëkkee point E maa ngi leen di nuyu di leen siyaare fa tabarakallah euh, di nuyu bu baax euh, sëñ Joxaane tey sàkku si yow nga ñaanal ma mm-hmm. sëriñ Xaadim Rasoul Guèye fa tabarakallah ah, mu baax la macha boo xam ne daf ma ubbil benn site internet. Mm-hmm. boo xam ne bépp waxtaan bu ma sa jaar si Wadduha. su fa nit demee dina ko mën a dégluwaat. seetal lii am na soxna su baax. Eh, waxtaan bi ma defan ak yow. Hmm. nee na ma du xëy ba jant soo te dégluwu ko. waay waay ndeysaan ki moo <laughs> te loolu lépp si ndimbalu sëñ Xaadim Rasul. ndeysaan ndeysaan eh, wallaahi maa ngi koy nuyu di koy siyaara. Ah. nu fàttali leen site bi www point wadduha point org. Mm-hmm. www point wadduha point org. Mm-hmm. soo ko defee lépp bépp émission wadduha bu massa. Mm-hmm. am. da nga ko fa mën a ah. dégluwaat ba si waxtaan bi nga xam ne def nañ ko sëñ Joxaane mm-hmm. lu passé suba incha allah mm-hmm. képp koo xam ne dem nga si www point wadduha point org mm-hmm. di nga mën a dégluwaat ah, émission danañu dégg góor gu naqari wax de <laughs> góor gu naqari wax macha <laughs> sëñ Joxaane lépp lépp lépp am solo lépp jaar si yoon lépp am njariñ ni ma la ko waxee mbégte bi yaatu na lool lool lool tey ndeysaan xanaa di sàkku looy laay biire dëkkandoo dëkkandoo nuñ koy waxee muy lu mot a rafetal tamit. da ne dëkkandoo. jàmm ca gën. ndax bés du ñàkk. bés nga ca déwén nag. boo ko waxee gune. mu nekk tabaski la. te mën naa doonu dëj. wallaay wallaay waxi magit Mhm. day guddee àll rek. Mhm. waaye du ca fanaan. Mhm. lépp lu la mag wax. booy boo nga bàyyi ko. xam ne dëgg la am na ñaan gooma dun wax ne. gune ah. war na koy sàkkuy déglu. yàlla boo deewaale bañ. <laughs> ndax mag bu njëkk mag ñi dañoo. daaw ñu mooy yàlla ci seen làmmiñ. nga daan barkeel. dëgg la dëgg la lu ñu la wax rek mu daal la. léegi bu leen gune tooñee. dañu ko naan maa ngi dagg sa déggee nga dund kat. xam nga loolu bu dee demee dund dafay des. Eh. maa ngi dagg sa la won bu ñu dajee sa lu bon lu baax a fay des. Mhm. maa ngi noonu la ñu daan def. est-ce que est-ce que waaw maa ngi maa ngi maa ngi toj sa lu bon. Mhm. bu ñu ko tojee lu baax a fay des. wallaay wallaay ndeysaan maa ngi noonu daan mhm. waxee. bu fekkee nag mer nañu ba mer ba mer. wax ku jigéen ki wala ku góor ki. ne ko gune gële doom. yal na nga deeyaa lay bañ. yal na nga deeyaa lay bañ mooy yàlla boo màggat. wallaay wallaay ku màggat ñàkki bañ. xale bu jigéen bu tooñee dëgg mu mere ko. da ko ne bu sab tooy yalla bu sab toy tooy yalla bo tawlu hmm nit bu taawloo dooma saw lalam mm-hmm. mm-hmm. looloo aman mm-hmm. yalla bu sab toy tooy yalla bo tawlu taawlu yàlla nga deeyaale bëñ mooy xele bi yalla na nga dee ndaw hmm te guddu fan kat fetaluk ñaar ngim nañ la da nga ci tooñ yalla tuup ci jéggalu ca loolu moo tax ñu naan bu ne gi doom yalla nga guddu fan yalla na saw fan gudd ha ah? loolu mag ñi dañ ko daan ta buñ ko ñaané mom dëgg la dëgg la seen làmmeñ dafa sel daw ñu ci moy yalla ba tax na bu fekkee ne bëgg nañ la xas sax dinaan yaa di saadaxi na mm-hmm. est-ce que la bëgg a wax mm-hmm. waaye bu ñu la nee yaa faasix nga dem bokk ci faasix faasixu na wallaay ndeysaan waaye ñu ne nag sa na mm-hmm. jam um saadix la saadaxi na jam um saadix la saadix mooy nit ku nit ku way nit ku baax ku dëggal ci diggam ak yàlla diggam ak nit ñi mooy nit ku baax mooy saadix mbooloo ma nag dafa am pluriel ak singulier singri mhm. bi mooy saadix prière mhm. bi mooy saadix yi na mhm. mag ñi nag bëgg nga baax jóge ci bon bu ñu la daa xen la bi lay yow yaa def saadix yi na dañoo bañ nga nekkub saa faasix te bu ñu la waxee faasix seen barkeb làmmeñ man na laa daal ñu ne yaa def yaa def saadix yi na jamo la woon mhm. wala mufrad la mhm. Mhm. waaw waaye ñoom noonu lañ ko daan waxee loolu lañ ci jublu bëgg lu baax dal la bañ lu bon dal la ma ngi dañoo ragalan yàlla wallaay ma ngi dañoo rafetal ay wax dañoo rafetal ab yar dañoo rafetal njëmbat dañoo rafetal suuxat noonu ma ngi meloon ba tax na képp ku roy ca mag ña waaye toog naan non <laughs> pas yéen tardel quoi <laughs> mag ngeen tardel quoi bu nekku ci bëgg doo wax loolu du gudd fan dañu la ne picc bu bëggee gudd fan day mooy fiir ak mbëpp lu am solo war ngaa xam fii rek bopp lu am solo bu baax gune bu bëggee gudd fan. bu baax mag da koy ñaanal. dëgg la yal na nga yal na nga. Mhm. nay lu baax ci mag. yal na nga yal na nga bu dee lu bon. Mhm. musiba lay doon ci gune. lu wér lu wér dinaa koy wax ne. waaw nit yàqoo si mbedd te du ko xam. te du ko xam. Mhm. ñàkk yar la. dëgg la dëgg la gis nga ngan gi nopp. mooy lu mës a dugg ci nopp. gune gu réew koy dégg. sa moroomam bàyyi mi daan ànd ak moom. ñu di xele ba ñu amaguti jabar. dem ba takkalante ay jabar mm-hmm. tam lii may bëgg a junj maasu gune gune xam na ko mm-hmm. Mm-hmm. muy man muy sama morom ndajeem gune ay xarit gune ci pénc yu ne dañu daan ànd di seeti xale yu jigéen yi man naa am kenn ca ñoom dem ba ndogal dal ko ci diggam ak gune gu jigéen moroom ya ñoo koy nëbbu kilifaay waaja dem ngénte xele ba toppatoo ko ndànk loolu am na ci maas gune am na li ma la wax nii teg naa ci bët man de dëgg la nee naa dama wax ci rajo mukk mhm. lu ma tegut bët mhm. mhm. waaye xele boobee ñu toppatoo suturaal ko nëbb ko moroomam yu góor ya yu jigéen ya léegi xele bi bu demee ba màgg ci gàttal dem Italie dem Amérique ñoo ami otoom am léppam fekk kenn ci xele yii doon maase ak baayam mhm. kenn ci ñi ko ngénte wutal ko tur mhm. kooku ñàkk dara yow la mu ñàkk xay mu def ko moroom mhm. ah du ko wax baay mu ne ko hee kaay dañu ko du sa moroom ah sa baay la <laughs> na nga xam nag li ma la wax wax ko sa yaay man du ma sa moroom de wax ko sa bàpp bu dee bu ko waxee yaayam danaan ah wattu ko de ko sa nijaay la sa baay la fekk yaay ja xel ma day dem ca la ko doon liggantil ca ci bi nga xele bii juddoo Mm-hmm. bu ko defee bu fekkee réew na nag mm-hmm. dëgër bopp mm-hmm. respecté wul mag ñi mag ñi fàttali ko bisam boobee mu dib góom bu ñu ko wax loolu mooy ngan gi nopp ndax ma dugg ci nopp te xëjul ci noppam gune gune gu réew moo koy dégg waaye gune gu yaru du dégg ngan gi nopp mukk gune gu yaru bu àndeeg yaayam mu ne ko nuyul kii sa nijaaya da koy nuyu jox ko cër bàyyi ba taxaw ak eh, yaay ja taxaw ak càmmiñam loolee xele ba bu yaroo day dem ba nale mu taxaw du taxaw fofu déglu seen waxtaan mhm. ndax dañ ne mag mbeur ci piwut mas ga courir mhm. te ko gis sa morom fo mhm. bu ko defé xel bi day avancer ba nalé ñu waxante seen waxi demb yow nangam yow ana diw fàtte nga nangam loolu yoonu gu newu bu dee ko ki mu ne ki sa papa la mu ànd ak bayam nako xamal ko ne bayam bi ki moromam la te ko ci sa morom waxtaan léegi na deme ne ki sa si sa baye kay sa morom baye ki no and no nangam no nangam demal ba ne bàyyi leen ñu waxtaan gune gu yaru mm-hmm. noonu lay def mm-hmm. du dëgg mm-hmm. kon yaru am na solo teggin am na solo teggin mooy aw teggi yiin aw teggi yiin ngay bëgg a dem fii wala nga bëgg a wax lii mu ñaaw ci yaw nga teggi wax gi sutural ko wër wagaaj ko delluwaat for yoon wa bu ne day am ay teggin bu ko defee ci wax ak jëf day am ay teggin ndax boo amee teggin dégg nga dinga gudd fan mag ñi dañ lay ñaanal Mhm. ma ngi mën a ñaanal la da ngay daal di gudd fan. Mhm. gune bu ñàkkee teggin réew. Mhm. loolu rek koy mujjee. day wëlbatiku dégg nga gàtt fan. wëlbatiku ñu di ko toroxal fu mu toll. di ko bañ ca njaboot gi di ko bañ ca maas ga. yàlla bañ ko. bañ loo ko malaayka yi ñëpp. kon réewande amul njariñ. yaruta baax moo am njariñ. respecté sa baay. Mm-hmm. muy sa kilifa bala ngaa def dara tàggul sa baay mm-hmm. bala ngaa def dara yëgool ak sa baay mm-hmm. nit bu nekkee ci ron parisoola baayam du tawte te naaj du ko tàng boo dëgëree bopp génn sa parisoola baay sa baay yiiratu la de génn sa kiiraayal baay de léegi nag béy dañ koy yeew ci kër gi mm-hmm. ak xar mm-hmm. waaye gépp ak jur ku mm-hmm. amul kilifa amoo boroom ca àll ba tili lay reere tili moo lay reere te kat béy ànd ak béya moo ko gën a jikki ànd ak cere te bii bu ànd ak béya ànd ak cere ya bu ne ko réew noonu lay mel bokk na ba ci léeg-léeg nga dem ci kër fekk fa euh, nga bëgg a dem ca wanag wa tuurukaayu ndox ba ca toilette ya nga dugg ci biir am ku ñëw amut yar bu toll nii. Mhm. ne kulbet. Mhm. gis lu mu wër sa gis. bu mhm. ne ko réew koy def. boo teeyee. buntu du ub boppam. buntu du sa tëj boppam. bu tëjoo nga xam ne na nga xam nañ ko. bu korosee yoo nga xam ni dafa ne. bokkul ci teggin. nit na ci wanag. nga dem fekk war a wëtëju nga jongru ko. dem taxaw ci buntu wanag wa. loolu bokkul ci teggin. léeg nga gis ku ko def di xaar ku ne ci duus. yoo koy xaare dem nga ci duus bi mm-hmm. léegi xam nga ne nit ci ne mm-hmm. nit a ci ne mm-hmm. te xamoo mag la xamoo xere ak ku ma doon doomu aadama la dellul toog may bët wanag wa ndànk bu ubbikoo nga xam ne ubbiku na léeg-léeg nga ñëw seet looloy dëgg waaye xale tey dañuy ñëw ci duus di rang-rangi di fëgg nangam nangam ah du noonu léeg-léeg it nga gis koo xam ne ki duus bu yàqu kubéer ga yàqu wala korosé ba yàqu Mm-hmm. dañ koy mën a wéer rek wala ñu delloo ko mm-hmm. boo ñëwee da ngay fëgg mm-hmm. bala ngay dugg ci néeg da ngay fëgg da ko alxuraan waxee ah? laa tadxuloo bu yotan xayra bu yetikum ba aaja jeex loolee nga bëgg a da koy fëgg ànd na ki teggin alxuraan da ciy dig jublu rek ay teggin la ci jublu du dëgg waaye ubbi bunt bañaax léegi ndakaaru xam nga lu fi xew nit yi léegi sax laa wax dama wax Ndakaaru dañuy ñëw fekk ñu ne ci néeg di waxtaan wala jëkkër ak jabar ne fa wala keneen ne fa ñu ñëw ne kulbet ne ah ngeen baal ma lu ñu lay baalati yaa ko tey nii bi kay rido banque fi rido mooy saatir mm-hmm, mm-hmm. sutura la tax mbañ gàcce la mm-hmm. boo dikkee waxal ca ëtt ba salaamaaleykum waa ni ngeen def ay kër gi ndax nit ñee fi waaye mbaa kenn tawatu li nga ci jublu mooy yëglu dëgg la dëgg la lu dëgg bu ko defee ku nekkan ci lu ko naqari day defar toogaayam ku nekkan ci leneen nday bàyyi loola ki la xam xàmmi sa baat te doon cigarette mhm. te di la ko nëbb te mosoo koo xam mhm. day def duut cigarette bi ki doon lal gi mhm. du dëgg moo tax téere dañuy dañuy dañuy bëgg boo duggee ci néegub jàmbur bul waneel sa bët di def nii waaw walaa tagul fii bayti xayrikal basar xafatalaay awratan fii satar bul sa bët ci néegub jàmbur bu sa néeg dañuy bañ nga wuññi awra waaye teew ci mu ne gees gees yéen ron lal gi yéen nàngam ba ci boutique nga dem ca di yër ca comptoir ba lii lépp dafa araam mm-hmm. kenn du ko def mm-hmm. nit ko ami teggin day xam na muy doxale xam na muy waxe mm-hmm. nit ko ami teggin day amum xel day yaru yar moo jig gune dañ ne koy tooñ du mucc waaye koy fay du noppalu wallaay wallaay lu koy tooñ du mucc mm-hmm. waaye koy fay du noppalu mm-hmm. waaw dama lay delloo kàddu gi wallaay macha allah am na solo <laughs> sëñ ah? Joxane am na solo macha allah 88 628 32 32 mu mel ni kii nu ngi woon si dëkkandoo bala nuy yëkkati jotaay bi waaw ak euh, li war si àqi dëkkandoo waaw <laughs> waaw na ne mm-hmm. dëkkandoo jàmm ca gën bés du ñàkk sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. da daan ñaax saxaaba ya mm-hmm. ci dëkkandoo ak nuñ ko war a fonke mm-hmm. ba ñoom sax am na ñu jàpp na dëkkandoo boo faatoo daf daa war a doon lu dëgg kon xam nga kay wax di foog loola kay wax fonk na dëkkandoo dëkkandoo ci biir kër gi respecté ko kër gi nga luye wala nga dëkk fi waa mbedd mi dëkkandoo lañu waa service bi ngay liggéeyee dëkkandoo lañu oto bi nga dugg di liggéey wala ngay tukki waa oto bi ñoo say bokk loolu dal ci biir oto bi ñoo koy jëkk a yëg ñoo lay dimbali ñoo koy wax say bokk kër gi nga ne boo amut ak kenn affaire di dugg di génn di nga dee ci biir néeg bi ba nëb fa ba xeej ñu woy sapeur pompier ndax faale woo kenn kenn du la faale par contre bu fekkee ne da ngay maslaak nit ñi di kaf di ree di xañ ñëpp jàmm li ñuy tuddee relation humaine nga toppatoo ko respecté ko ñëpp lay bëgg boo ku la gisut sax su ba ngoon ah waaw mm-hmm. waaw diw da ñëwul tey waa mm-hmm. na diw mm-hmm. bu néeg bi uboo ñu naa diw daal di fëgg nee ba yooyu yëpp di la toppatoo booy tukki dem fi barab sàngam tàggu say dëkkandoo leen maa ngi dem Touba maa ngi dem barab sàngam kat sama néeg bi dellu ma ko déglul bu ko defee jàmm ci gën bés du ñaat ban bis la ku fa yëngu ku dul yow ñu ëlbatiku dal ci kawam ku ëlbatiku bëgg laa béefér bëgg laa jaay doole say dëkkandoo dal ci kawam waaye day fekk nga séq ak ñoom jàmm wolof dane tib bi tib tibab lekk bi ub làmb démb lañu koy lekk boo ko lekkee tey bëgg a bëre daan da ngay gàll nga waccu kon tib bi ub làmb dégg démb lañu koy lekk moo mel ni ki am na si yoon bi بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سلام عليكم سلام سنت الحمد لله الله جمع لي بعد وصل لي نعمة الله خلق الله جرجف جرجف بسم الله ل ل ل ماشي قري قري تسي واو بسم الله وخلنا أبصر من اللي قتاس léegi golo bi siit bi fi doog a wàcc la yàq la ji bu nekk lu tax nga yàq la ji tàggoo ma tàggoo ma. sos jabar sos jabar doom ci la jaagal tas doom jaay jabar jaa ngi itaali sonn ci ba ba jël ko. waaw góor waay. ko ma nii la tasi dem seen kër am ful mat weer tàggoo jëkkër ja. est-ce que est-ce que ba ba biñ ko biñ ko takkaat nag léegi mu tëgul ñaari weer. est-ce que dana ko takk. mu ngoogu est-ce que est-ce que wallaay boo xam ne boo ko gisee dangay dangay bi nga déggee seen Alaaji Mbaaxu yàlla ñu ngi ko ñaan fan ko ku wér rek te yàlla yàggal ko yàggal ko yàggal kookam kanam amin amin amin sëñ maa ngi leen bari dinaa leen woowaat fi incha allah incha allah baax na jërëjëf maa ngi nekk Pikine ci police Thiaroye ci gaara bi ah dëgg la dëgg la waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf waxtaan neex na lool jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla yàggal seen taxawaay amin amin amin amin yaram yi jërëjëf jërëjëf bàyyi leen seenum xel amin amin yàlla leen jëf man ma Ahmed Dabo laa tudd baax na Dabo yàlla yàlla jërëjëf Dabo barakallah Dabo Dabo xam nga lu tax mu jaawale maag El Hadj Mbaax Mbaay. El mm. Hadj Mbaax Mbaay ba géwél Pikine. Eh. jamonoy meeri kat yi moom la moom la ma jaawale. El Hadj Mbaax mm-hmm. dafa rafet dafa rafet xel. Mm-hmm, mm-hmm. di wax lu rafet. man waxtaanu kër mhm. dimanche ci suba man dama koy déglu ñëpp di ko déglu alaaji mbaax na nga koy gërëm mhm. di ko sant mhm. di ko ñaanal yàlla doo di ko jàmmay ko fan gudd ak wér géeram ku rafete wax la ku la am xam-xam la ko xam kër la ku xam njaboot la alaaji mbaax mbaay ba géwél Pikine moo tax mu jaawale kàddu yi ndax waxeen yee niroo <laughs> waxeen yee bokk li ma xam la xam li may wax la dëgg la ndeysaan macha allah loolu am na solo loolu am na solo <laughs> alaaji mbaax mbaay nu ngi koy nuyu <laughs> tey nag sunu papa alxaaji papa joxaane inspecteur ma fi nekk. 88 628 32 32 mooy yoon bi. na ngi woon si dëkkandoo. xam naa minute ju néew rek hmm. incha allah. dëkkandoo. Uh-huh. dafa mat a respecté. Mm-hmm. nee naa la dëkkandoo du ki nga dëkkal ci kër gi rek. Mm-hmm. moom mm-hmm. ca la bokk. ki nga bokkal néeg. waa mbedd mi. waa jàkka ja ak grand place ba. booy liggéey oto bi nga dugg. dëkkandoo la ndax loola dal. ci biir oto bi. ñoom ñoo lay yëkkati. Mhm. ñoo lay faj ñoo lay toppatoo. Mhm. du dëgg. Mhm. service ba ngay liggéeyee. say dëkkandoo la ñu dox fekk ngay wàcc. ñooy say dëkkandoo. loolu dal ñoo koy jëkkee ak say bokk. Mhm. kon dëkkandoo dañ koy respecté mhm. dañ koy joxab cër mhm. dañ koy sédd waaye nag gu ne tey yii xew faale wu ñu dëkkandoo faale woo lenn ku ñu am sa xaalis riiral sa wata ñëw ci sa buntu kër doo nuyu kenn boo demee ci aw xew dafa yiree oto ba ca tànt ba loolu ba ti ko taxaw ndax bëgg gis leen ma firi say garaam mbubb dégg nga doo nuyu kenn doo nuyu say bokk nga dem ca patron ya ndax dangin mooy golo gu mag golo gu mag bu góor dangin moroom ma lay raas nee nañu lu dagg moroom ma lay seet ñu dem ba foofa fàtte ñi faaloon ñu naan kii kana kii kana nga gis yambar yi daw di ko dogale naan ko eh, alaaji eh, alaaji <laughs> waa ju am fu la ne ma joxaane mu naa ma ku ma fekk ci xew mhm. yaa may nuyu Mm-hmm. man faarewu ma la ak sa oto bu ki du dëgg borom ŋaat yëgut borom pañe <laughs> wallaay wallaay xam nga ko mooy mare bu maree gur a xar yi rek <laughs> wallaay ah? wallaay te borom pañe bi saa bu lumpee ñetti doom uh-huh. ñu ne kii dof la <laughs> bu takkee ñetti montar ñu ne kii dafa con uh-huh. bu solee yaari mbaxana uh-huh. ñu ne kii dof la kon nag borom ŋaat ŋaat guro yëgut borom pañe bu borom pañe ba yëgut du dëgg am na ay gor yoo xam dañoo amee jikkooy ron mm-hmm. ron mooy koko bu kooku xale yi xamul mm-hmm. sori gu mu sori piir sañu xóor ga mu fekk baax mm-hmm. du ko tax a maase geer mukk ron gudd la baaxoo geer gàtt la baaxoo am na gor yoo xam ne bu ñu doon yelwaan am na ñoo xam du leen jëwale seen mbàtt mukk ci àddi ndax ay gor lañu li ñu tee a am bëgguñu ko du dëgg kon dëkkandoo jàmm ca gën bés du ñàkk day soree bés du ñàkk mukk nga amu xew <laughs> am na koo xam ne barki dem boo njaay ku doon nettali <laughs> am ah, doon ku dañeeral <laughs> doon ku bari tiitar diw sàngam la ba ma ko waxee xam naa ko xam naa fa mu dëkk ba ngeen te ñëwee wallaay mu amu xew dëkkandoo ya kenn demul laa xam ya dañ koo mujj maye dañ koo mujj saraxa ji kenn lekk ko ndax kenn fay dañ ko fay borom boo nee ci borom te faale woo kenn di jaay xaalis wala ngay jaay jàng wala maire la wala député la wala ministre la wallahi bis dina ñëw bis du ñàkk de day sore bis dina ñëw ñu fay la sa bor mm-hmm. Mm-hmm. kon ndomba gu waay mën a takk mm-hmm. na nga faale nit ña ndomba gu waay man a takk na nga bul fàtte démb bul fàtte ñu la doon jàppale te it ku yéeg dañu laa toñ ku jàpp dañu laa jàppale kon lii mooy amul kenn ku am doole fal boppam réunion ak boppam ànd boppam ba doon député wala nga doon maire faw mbooloo ngay àndal def say réunion def say comité noonu ko waa proté yi xame ba mu egg fa nga war a yegg nii rek la demee wallaay wallaay wallaay góor day jàpp ci góor góor jàpp ci góor ba ca góor gu mujj amul kenn koo xam ne sa doole bopp rek nga yaakaar amul wallaay wallaay yàlla rek mhm. moo yilif ñëpp mhm. mooy toppatoo ñëpp mhm. waaye gaa ñii léegi li ñu xewal ku nekk sa bopp bokk gi yàqu na wallaay wallaay xarit gi yàqu na dem nañ ko ba nga xam ne boo amul xaalis sa doomi bàjjen jee dem takki ko mhm. te ñuy boroomi xaalis yori étage yori 4-4 mhm. te yow yoroo mhm. boo demee bëgg sa ngoro ñu yebal la fa xanaa diw da mu ne ah nee diw la bëgg ñu ne xanaa kii xamul boppam <laughs> mu ne waaw léegi te ñoo bokk ci ndey bokk ci baay a ah, foo koy bokk mënoo koo jëw lii la mag ñi doon def waaye xeley te yii boo amul xaalis toogal boo demee ci aw xew toogal fa suuf loolu moo gën bu ko defee dañu lay wàcce de nit ku yaru sax du dégg xëyalal kii. Mm-hmm. Mm-hmm. day ñëw toog fi suuf bañ ko ne sëñ bi agsil ci kaw. Mm-hmm. waaye boo demee fekk fa sa bàyyi ak sa moroy maam ya di toog. nga ñëw jëkkante foofu ndax bëgg àddina. bu nit ñëwee ñu la ah mayal kii tuuti mu toog. nga dellu ca suuf. kon dañu la ne. da sëñ Blaat wax ne kaala. ak laxasaay. kaala day doon laxasaay. ne ci ndigg. ngay góorgóorlu. takk sa ndigg ba war a yegg ci kaalaw. Mhm. waaye kaala saa bu njëkkee ci bopp mhm. day wàcc dem ci ndig wallaay wallaay lu hmm? wér a wér lu wér lu wér kon góor góor lu baax na mhm. respecté say nit baax na toppatoo sa njaboot baax na yow góor yow jigéen toppatoo sa say baax na toppatoo sa njaboot teg na ak sa bokki jëkkër ak sa xarit jëkkër waaye waa jii ci ndaw si it na respecté ndaw si te di ko teral bañ koo toroxal jigéen du pour toroxal jigéen du pour dóor mhm. jigéen du pour du pour ñàkkal fayda mhm. jigéen lu am fayda la mhm. te it ku baax ci jigéen nga bàyyi ko donte ku mel ne leen ci jigéen nga bàyyi ko waaye ñu baax moo ëpp kon dañuy teral jigéen jox ko cëram ñoom it bu ñu ñoon lox ndiku yéeg ja yéeg baaxu ca da nga ànd ak garab ga daanu li leen yàlla jox di cër nit ñi jox leen ko muy nit ñu baax di sunuy ndey di sunuy jabar di sunuy doom di sunu lépp cër boobu buri yàlla jox leen ko nañ ci jàpp waaye bés bu ñu xamee ne yóotu nañ xëy bëgg a sol tubay góor bu jigéen xëyee sol tubay góor waaye balaa ngoon mu yàq ko que du pour moom ñëw ñu ko pour moom doon leen jigéen toppatoo seen as kumba bàyyi góor ñi ak seen i tubay du tee mbir mi dox sëñ bay jaxate nee na say yaa ngi nii kat yaa ngi te wuute ba de ku nekk jox ko sayam kon ñëpp wéy ta sawar saxaar bu dee madd mooy gëleem saxaar a ngi mbaam a ngi ay madd a ngi sëf ngi boo jaawalee seeni sëf def ay mooyul jëfi lor du dëgg am na sunu mbokk yi euh, dañu daan wax ca bu njëkk taalibe cheikh yi dañu daan wax ca bu njëkk naan gaaxi tukkal bu ko mbaam sëfee defu ñaay moroom te moo yey bajo bay niroo gayndeeg ñenóor doo seen moroom ñu ne rafetul doomi gaynde njaay wacc waasoom jaxaso xar yi yàgg day indi miineel bu ko xar yi yabee ci moom la du caaxaan kon dafa war a dellu àll moo gën a ñu ne mbay salu bi saloo ala nabi ahmad nanu muñ mbay mi fiiru tey duñu fàtte mhm. est-ce que macha allah wayu am njariñ loolu jar naa taarif yu am njariñ tubaarkalla <laughs> est-ce que ah? est-ce que macha allah wallaay wallaay wallaay noonu la mbir mi mhm. demee wallaay am na solo kon nit ñi nañu nite ndax boo déggee nit nit nite mooy garabam mhm. kenn waxul na nit nitey garabam Mhm. nit nit du garabam ndax lu naqari nit nit a ko teg dëgg la dëgg nit day nite gi ngay xam li ngay jàpp mhm. xam li ngay téye mhm. xam ki ngay àndal xam li ngay bàyyi xam ñi ngay respecté xam nit ñi xam ne nit ñi niw yi yemuñu daraja yi yemuñu lenn yem ndax yàlla yemewul dara dëgg la ki nite moo xam loolu waaye ki nitewul xamut loolu ma jox la ci beneen misaal ki nite ki ki nitewut day dem ngénte bëgg àddina ñëw guddi min wi fekk muy jamono seet nit ñi teel a tëdd mhm. mu bëgg cigarette wala mu bëgg café am na lu mu tamal boppam ak mhm. bakkanam ba mënu koo ñàkk mhm. mu taxaw ca mbedd ma seen boutique buy xuuy fële na mu soloo woon ak la mu takk ak lépp mu waaxu xuus di bëgg àddina bëgg tiitar dem ca boutique ba fekk fa ñetti ponkal <laughs> ñetti ponkal yooyee waa ji bu ñëwee ni yoo dem na waa ji génn dix mille francs di jaay xaalis ne borom boutique bi jaay ma nangam bandi geesu xool ko mu jënd la muy jënd ba pare génn dem bandi daf ko jël xaalisam futti ko def ko yaramu neen duma ko xam nga lu koy indi mm-hmm. dafa nite wut dëgg la dëgg la bi ki nite ñëwee xam nga nu mu def mm-hmm. daa jóge ca ngénte la mm-hmm. toog toog toog ba yàgg ma naa jëndi nangam yorit weccet summi la mu solon sol lu woyof ak daal yu woyof waaxu jëm ci ñetti ponkal ci buntu boutique ba mu nuyu leen yambar salaamaaleykum garaa na ngeen <laughs> dem ci boutique ba ne man dañ tëñ bi damaa ñëw fekk ñu defal ma soom bi uh-huh. ma ma ma ma xiif nag lebal ma juróomi dërëmi suukar uh-huh. waaja jox ko wala mu ñàkk koo jox moom bakkanam lay sawe <laughs> mu daal di wëlbati góoram ba gaa yi gaa yi dañ koy saaga rek naan yàmbar mi dafa nite kon nit nite mooy garabam <laughs> noonu am na solo macha mooy nit nitey garabam dëgg la waaye nit du garabum nit ndax lu mm-hmm. naqari nit nit ak côté lu wér lu wér lu wér ci jamono gii ñu toll surtout lu wér nit nitey garabam nite mooy lu am solo kon nite lu am solo la macha allah yal na na ko yàlla defal yàlla defal ko riteer yëpp mag ñi dañu ne di buur di bu di buur di bummi mm-hmm. doon nite ko gën Mm-hmm. mag ñi dañu ne mm-hmm. noon bu nite mm-hmm. moo gën soppe bu dof ndax day fexe ba tàbbale ci musiba mu ngi noonu la demee wallaay wallaay waaja ba muy layoo ji da ne man day tribunal laa jëm di layoo ji waaye ka may layoon yal nay doon yal nay nit ñene lu tax mooy nit bu la yeeyee xam ko boo ko yeeyee xam ko dof nag bu la yeeyee doo ko xam boo ko yedu ko xam kon yal na nu yàlla dolli ak nite amin amin amin ah, joxaane macha allah rafet na ah, rafet na macha allah tey ñëpp kontaan nan eh, at bi it kontaan nan macha allah <laughs> ma ne ko eh, émis ñi soppee Wadduha ñëpp it kontaan nan macha allah si jàngale gu am solo bi ak defaru gi nga xam ne ñaax nga ko ñëpp mm-hmm. tàmbalee ko si ñaaw ndaw yi mm-hmm. tàmbalee ko si boole si wayjur yi mm-hmm. boole si ñëpp daal macha allah waaye bul fàtte ne formation bii ma nekke ak nu mu mën mel. Mhm. RTS la formation bi. macha allah ndeysaan maa ngi gërëm waa RTS bu baax. Mhm. def naa fukki at ak juróom yéen. est-ce que booba rajo yi amuñu. dëgg la dëgg la. ña fa nekkee mhm. di kilifa yu baax di ay journalistes yu baax. formateurs yi baax ne fa jàngalekat yi mag ne fa. Bachir Gunta El Hadj Bachir Gunta. Mhm. dégg nga Annette Mbaye madame Annette Mbaye Derneville mhm. alaaji Ibrahima Mbengue yal na ko yàlla yërëm ak ña fa nekkan di mhm. ñu baax ak directeur ya fa nekkoon kon fokk ma gërëm la waaye formation bi foofa la Doudou Diop Silmaxa moom moom ma formé moom ma jëkk a jox micro Doudou Diop ñëpp a ko xam ki daan def Sénégal do euh, euh, Sénégal ki daan wax naan bonjour le Sénégal moom Doudou Diop waaye siiw gi si FM la Mhm. Sud FM la ndax kee rajo gouvernement la kii rajo privé la mhm, mhm. kon Sud FM dama leen di gërëm di leen sant di leen njukkal techniciens yaak animateurs yaak journalistes yëpp kon siiw gii lu xew tey émission yeeg loo ci xam ak yëpp. wallaay Sud FM la yàgg def kon dama leen di gërëm. di leen sant. maa fa retraité laa ñëw fii. Mhm. Almadina FM. Mhm. tey nag kii di rajo siiwal. Mhm. sa bokk sama mbokk mii di yow. indi ma fi ak jàmm rajo boo xam ne ñu baax a fi ne. di ñaan yal na rajo bi jëm kanam. amiin amiin yal nañu fi nekk wér. yal nañu am wërsëg. yal na leen di fay yomb ki leen di fay. lii kat moom laa leen di ñaan ndax lu baax laa fi gis. ñu am yar laa fi gis. sunu technicien bee nag ku am yar la ku am teggin waaye may delluwaat gërëm la dëgg ah? danañ ko dégg bu baax monsieur Babacar Touré. Mm-hmm. président Babacar Touré président mm-hmm. Sitcom. Mm-hmm. di gërëm Omar Fa Amar Diouf Fall ak Baye Omar Gueye ña euh, da koy rafetal. dëgg bu dëkkee ci Mhm. ñu jàppale ko bagaasam. dëgg la am na solo. ndax ay tax. dëgg la dëgg la nii la demee. wallaay rafet na lépp rafet na mhm. yal na yàlla yokk wéral cër yi. yàlla yokk guddal fan wi. amiin macha allah ni ko mbokk yi waxee monument nga. Ah, si mbiru defar. Mhm. dama la ko waxee seede la si la ma soxna soo si waxoon. na sama yaay saa yu may génn rek def naan ma Pape Diokhané <laughs> yebam loolu la. wallaay te tegtal si ne macha allah bu. bu ko tuddee loolu lépp loo xam ne lu defaru la. Mhm. dana ko bàyyi si xelam. lépp loo xam ne safaan lay dana ko moytu. dëgg kon koo xam ne ay at yu bëri comme nu mu ko waxee. Euh, si loolu la nekk. def naa ci rajo fanweeri at ak juróom jaadu na ñëpp. dellu ko jaadu na ñi ñëpp ñaanal ko. waaw tabarakala looloo tax ñun comme que dañuy door. Mhm. ñaanoon ko na ñëw. fii si Wadduha mhm. si. barkelu si nu barkelu si. Mm-hmm. dëgg macha allah si li ko yàlla dénk. loolu moo nekkoon sabab bi. Mm-hmm. di koy delloo jéggalu. di koy delloo jéggalu ndax tey mag ba heure yi wax dëgg yàlla <laughs> metti na. waaye waaye waaye ci métier mi la. Mm-hmm, dëgg la dëgg la euh, man gëstukat laa. Mm-hmm. jàngalekat laa. Mm-hmm. enquêteur laa. ba waa police ak ñëpp ñëpp. dëgg la sekk mu ne RTS. dëgg la ci ba mu nekkee Sud FM. moom mu njëkk tuddee inspecteur. te ci la ñu ko bàyyi. wallaay te xam nga wax wax fonction ab jàmbur. te du yow. dëgg la xam nga am na lu ci def. cër la garaat la garaat kon nag noo ngi sant. dëgg la di gërëm mboolem kuy takk der. dëgg la alors. <laughs> loolu nag damay ñaan bépp rajo bu mu mën a doon mhm. boo soxlaa ci sama xalaat mhm. wala bépp journal mhm. boo journal bari ñëw nañ ci man rajo bari invité nañu ma dëgg la dëgg waaye invité bu guddi yow bii yaa ko mën a am wallaay du dëgg léegi rajo bu waay soxla ak lu ci waay soxla ci wolof ak lu mu doon ak looy laaj te sama xam-xam yegg ca boo ma ko laajee ci téléphone ak lépp ba ma invité ma ñëw du dëgg xanaa émission boo xam ne rek day wax ci politique. Mhm. ak sport. Mhm. loolu dama ca amul xam-xam. dëgg la moo tax du ca def émission. wallaay wallaay waaye lu dul loolu ci wàllu social. Mhm. ci wàllu jàngale ak jàng. boo ma invité dinaa ñëw boo ma la wax. bu dee loo a wax ko it. boo ma téléphoné ko. ko dëgg la dëgg la fas allo ahla dikri. in kuntum laa la. dëgg la dëgg la la dëgg la xanaa papa nu bàyyi la nga Ah, euh, laaye biire <laughs> mbokk yi loo xam ne moom nga leen bëggoon a laaye biire bàyyi yàlla sa numéro téléphone pour képp ku la soxla euh, pour loo ko bëgg laaye biire mm-hmm. waaw euh, damay wax ca sama fee ma ne sax mm-hmm. numéro téléphone mm-hmm. kenn du ko nëbb dëgg la dawee ba jub duwaañ teggi jàdd a jaar yor na faroot dëgg la dëgg la bu boobaa bu ñuy seet loola moom lañ koy laaj ndax dañu ne bu cin fuqut bënnut yax ba ca nekkan jóge ca. Mm-hmm. te ka ko toggan jógu fa. <laughs> moom lañ koy laaj. <laughs> lu wér ala kulli xaali wallaahi wallaahi kon sama numéro ku ma soxla. Mm-hmm. dafa am 204 80 40. 77. 204 80 40. 77. 204 80 40. ak 77. 513. 70 57. 513. 70 57. bu dee beneen bi. 76. Mm-hmm. 697. cinquante six mm-hmm. soixante cinq mm-hmm. bu ko defee ku mm-hmm. soxla laajal ku soxla wooteel ma fay sama téléphone ba ma nëbbutu heure bu ne dem ba ci laay bale ab dongob daara laa wallaay wallaay am na solo kaw kaw laa dongob daara laa am na man loolu laay tiitaroo <laughs> am na solo tiitar bu mag la tamit <laughs> tiitar bu mag la joxaane yal na yàlla yokk guddal fan bi ni ma ko waxee woon si tàmbali bi mbégte gi yaatu na lool lool lool lool comme noonu nga ko waxee lii nga nu cëralee tamit macha allah yal na lépp di si yow fa tabarakallah eh, mbégte gi yaatu na lool lool lool lool. borom kër gi itam. Mm-hmm. dañu koy ñaanal. Mm-hmm. Mhm. am na bis ci sama émission fële ca Almadina FM. Mhm. na may ñaanal ñi amee rajo yi borom organe de presse yi. Mhm. di leen ñaanal. nit ku am xaalisam war a dem bitim réew. war a noosi. war a yàq xaalisam. dégg nga mu ubbi ab service. ay nit di ca liggéey. di ca jël seen àq. di dundal ak njabootam. ki def loolu yi. li mu xam ci tuyaaba. kenn xamul mu toll. ndax mën naa jëlee xaalisam boobu. def ko neneen. wallaay kon borom kër gii. lu wér noo ngi koy gërëm. di ko sant bu baax <laughs> di ko ñaanal yàlla jëmee ko ca kanam uh-huh. uh-huh. ay télévision yu bari amin amin amin kon kër gi eh, na gën a siiw uh-huh. amin yal na gën a siiw amin ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf nu ngi koy bu baax Thierno Lo Doudou Coulibaly Fatabarakalla soxna Ndey ak ñi fi yëngatoo ñëpp ak ñi fi def mission ñëpp it fa tabarak la ñu ngi leen ni nuyu di leen siyaara di am mbégte bu baax si moom si ñoom kon nu fàttali leen ba tey eh, képp koo xam ne bëgg nga dabu dara si waxtaan wi incha allah soo demee si www point wadduha point org www point wadduha point org bépp waxtaan boo xam ne mas na jaar si wadduha eh, boo demee da ngeen ko fa mën a fekk nuy sant bu baax tamit si Ahmed Tidiane bi nga xam ne moom la nekkal nu ngi koy sant bu baax di koy nuyu di koy ñaanal kon looloo nekkoon tey seen émission Wadduha nuy sant yàlla bu baax tey am mbégte yit ni ñu ko bokkeek sunu kilifa muy Serigne Pape Diokhané ni ma ko waxee képp koo xam ne euh, soxla nga si la ko yàlla dénk soo bëggee jokkoo ak moom soo ko woowee si 77 204 80 40 77 204 80 40 da nga jokko ak moom. nu koy ñaanal bu baax macha allah yàlla yokk euh, guddal fanam la yokk wéral cëram fa tabarakalaa ba la mu yéene si askan bi te mooy ñëpp tege si siraatul mustaqim ñëpp jariñu ñëpp euh, it xam ne démb lanu am ñëpp it xam ne amun mënunoo am lu ëpp mag ñu baax ñu ni yàlla booleel nu dellu si loolu bu baax a baax a baax euh, nu ngi ñaan yàlla defal nu ko defal ko ñëpp it kon nu leen di fàttali eh, sit bi pour ñu ko amul woon 3W ngay def def point wadduha point org fa tabarakallah lépp loo xam ne mës na fee jaar si wat wadduha su ngeen fa demee dangeen ko fa fekk di nuyu xarit yi soppe yi wëllëre yi fa tabarakallah ñëpp xam naa ni ñu koy waxee doon leen lim dana ëpp émission képp koo xam ne yaa ngi bëggee wadduha wala ngay bëggee alxaaji Modou nu ngi lay nuyu di lay siyaara di lay ñaanal di ñaan ñëpp it fa tabarakalaa yàlla defal nu mucc si géeju xewal nu ngi koy ñaanal ñëpp loolu moo nekkoon seen émission Wadduha lépp lu si jub nu ngi koy sante yàlla nuy nuy tamit euh, euh, al kalidu sëñ kalidu Ba ak ñi dëkkee tund boobu yëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaara lépp lu si jub nu ngi koy sante yàlla lépp lu si dangi nu ngi leen koy jéggalu loolu moo nekkoon seen émission di ñaan yàlla may nu nu toogaat feegeen jotaay ci seen émission Wadduha wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu